kañum maali kaji onon de wonɓe jiiduno jamanu soko noon kañum kañum tan yiyaji on ɓen hañum jahani mune mune alaji malik am nañu bëri ñu bokkaloon zaman ñooñu jéemuñu aji moom moo def ak ay pexeem dem ba aji ɗum mu ne loolu rek doy nañu seede ñu ngi sant yàlla si loolu yo mu ne yàlla nañu yàlla nangul yo yàlla nañu yàlla nangul haji onon de ko so itta avion ittimo Paris su ko avion jëlee Paris rek addamo Nouakchott yóbbu ko Nouakchott min mbaɗe directement ɓogge ñi yóbbu ko directement ɓogge haaji min te soko noon banndiraaɓe ñaagiima yi nag ñaan nañ ko haaji pour o addee ñu indi ko ba fii ndenda julde makko ñu jullee ko fii o ñu jëlee ko fii ñu yóbbu ko ɓogge wonɓe toon ñu fa nekk ñi haaji keeta wirnude mo toon ñu ñu feete si si denc ko jaɓani ɓe jaɓaniiɓe ɗum mu ne nangul na leen loolu sabune moo no noon ndax yéen moo tax mbele moon tawtude ndax ngeen mun ko fekkee noon gartugol makko ngol mu ne del delloo seem haaji talaata lay nekk kikiiɗo arata si ngoon so ari su ñëwee waala mu fanaan ba suba subaka janngu mum eh, eh, alarba si suba si alarba o bi haa joni nde ah, o juulee ñu jullee ko fii si raw ceerno seydou bi haa bi ittee ñu jëlee ko fii o nawee ñu yóbbu ko ɓoggee ñu denc ko foofu mu ne mu ngi leen koy terale yéena ko mbom seen mbir la ma ko déggee barki démb. mu ne sëriñ Mansour si nee na bi mu ko déggee barki démb. mu ne moom moo doon edd kaawu góor gi. mu ne doo mun a xam ne ñoom ñoo bokk ndey ak baay. ci tarbiya ak taxaw ak nu mu ko taxawoo. mu ne moom nag xaritam la moom moom sëriñ Mansour. bi mu feebaree. dafa ne Baba Guèye. waxal Mansour ni ko. soxla naa ko doon donte benn minute la. am li mu ko dénk mu ne xaritam la moom anu fii toogal gàmm yeeg yëpp yaay ñëw bi ñu tam ñu gën a wéyal ne bi ñu ñëwee tam ñu gën a wéyal loolu na fa toog na fa toog loo wax noo ko wax loo wax noo ko wax kon zawiye bi c'est zawiye sunu zawiye ñun ñëpp waaye yow lañ ko méngale mu ne ko nag sànni ciy kaddu waxaale ngeen li ngeen mi ci biir. nee bu ñaanee radiyallahu taala anhu Seydi El Hadji Malick ay ñaan nee bu ñaanee njabootu Seydi El Hadji Malick ñaan kon xalifa bi ñi ci biir ak ñi ci biti ñépp nañu dugal seen bëgg-bëgg yépp ci ñaan gi amirul muminina di ñaan Cerno Muntaka Taal ne talaleen seen i amin waaw yëkkati aousubillah min asheytan irajim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 وارفعنا ولا ترفعنا وأعنا ولا تهرمنا وذلنا ولا تنقصنا وارحمنا ولا تؤذبنا فرج همومنا واكسب همومنا واهلك عدونا وانصرنا ولا تخذلنا وكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضانا واسترنا ولا توثر علينا واحفظنا ولا تضيعنا فإنك على كل شيء قدير يا أقدر القادرين ويا أسرى العازمين اللهم إنا نسألك ونستغفرك ونسألك من فضلك وكرمك وجودك وإحسانك أن تبلغنا مرادنا وتجدنا حوائجنا وتهدنا إلى صراطك المستقيم وتنصرنا على جميع أعدائنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين وقت هواجنا وهاي المؤمنين وقت هواجنا وهاي المؤمنين وقت هواجنا المؤمنين وانصرنا على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة فاتحة مصطفى وقد تلاقت وحوش الخاف خين كما من سواكن البدر قد لاقت من النعم مصطفى وصلي سيد الحاج مالك صرير كل مليك صار منتكسا بلا خلاف ورب الكعبة الحرام مصطفى وصليا يا إلهي وجدي أنا أبا مصطفى أجمل ما قضى بأبواء عبد الله حين مضى شهران للحمر هذا شعر الكلام من كل وصف حميد هذا أبعد حجم لنا أجملنا من كل وصف حميد حاد أفعال تربي لرجال